Hamburger Joal Fadiouth nee naa leen lamb ji nga xamante ne moom mooy classico lutte simple woote waat nañu waa Ndubaab le 6 le 7 ak le 8 ak samedi lay doon zino telli ci digg bi ku ne la moom ba na lu waa ji ragal du ko jàppal bés waa Ndubaab nee yee eh. hmm. ak nga isolan tegal nañ mbëri 3 millions ni ndax nam ndax nam te bokki na ana am ci koy kum du wax nga mat na du bal lam ji gëna neex ci aduna yëpp mu ngi non 3 millions liñ ci tek ñaari ak ñaari sare ñaari fas ñaari sare ak 3 millions kon do xam day xam mbeur bu ci am rak mu nga ko commencé animation commencé bay ndum di wala wado le 6 le 7 ak le 8 juin 2024 jeudi vendredi samedi lay da <laughs> da